mbokk yi entreprise sénégalaise de bâtiment wax dëgg yàlla seen xam-xam dafa màcc ci lépp loo xam ne bâtiment la rawana ci plan boo xam ne da nga bëgg tabax jàkka wala école wala immeuble wala loo munti tabax chantier daal yàlla may na leen ci moo tax de réalisation de tout travaux bâtiment ñoom dañ cee xarañ ñoom nag ña nga ca Anne Maris ca 33 832 85 entreprise sénégalaise de bâtiment mooy entreprise bi nga xam ne ay nit ñu xarañ ay ouvrier yu xarañ te mën nañu def di ko teg ci yoon mbokk yi egsi fi nga xam ne moom mooy Todo ESGD nekk fii ci HLM Grand di bërëb boo xam ne lépp loo xam ne day taaral kër rek ñoom mu ci taxaw xoolal ma chambre à coucher yu taaru yi xoolal ma salon yu taaru yi xoolal ma tableau yu taaru yi nga xam ne boo ñëwee fii ci Todo ESGD ci HLM Grand Yoff allo Macky Sall Antonio Guterres, secrétaire général ONU lan laa lan moo xeew lan laa adduna bi yëngu naa loolu xeew lan waaw ok ok li ma jot a may may so yes thank you lan laa mm mm Mm. Oh man, man, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Democracy do noonu no munu ma nelaw guddi no bëccëg aussi Palestine Jordanie adduna yëngu na maa ngi fu ma teg fa tànk because pour régler problème adduna Sénégal ñoo tegu sama loxo mu nekk dossier bu tàng jër Kaskia lan laa Macky lan laa lan nga ragal lu where is the problem lan laa yes mais nga bàyyi ñëpp bokk ok where is the problem lan ngay ragal dis-moi lan laa wa wax ma lan laa Macky lan Hmm. Hmm. Tappale. naaw naaw naaw naaw benn yoon nga bàyyi ko quand même quand même quand même quand même la lan ngay ragal way sa problème waaw dialogue dialogue dialogue dialogue dialogue dialogue dialogue africain dialogue dialogue dialogue national dialogue international combien combien combien de fois laan laa luy problème lu ma gis nii lu ma gis nii dafa tee suma xel lu ma gis nii this is a problème si sa dossier yi nga fi indi woon 2012 yaa ngi doon ma euh, Ablaye Wade ci coow lu mel nii léegi yow yaa taxawal coow boobu nga bañ coow li jogaat ci kaw quest lan la lu ma gis nii doy suma xel dellul ginnaaw na nga dellu ginnaaw très rapidement get to the getter no problème na ñëpp bokk ci problème bi this is problem is lan la lu ma gis nii hmm? bàyyil ñàpp bàyyil ñàpp Russie dañ ci tax jàmm ba lépp satti yow nga am problème bu ndaw Sénégal Africa West Africa nga bëgg a yëngal àdduna bi ci cooloo xam ne dañ ko tëj Kaskia Kaskia Macky lan la li ma gis nii lii doyul suma xel lii lan la looy ragal lan la hmm? man ak yow ñooy wax la wax ma lan la da nga def tojange lan ngay bañ nit ñi xam lu tax bëggoo ku la doon ci li nga xam na deewa nga yaa ngi dund lan la waaye what is the problème li ma gis nii li ma gis nii doyu ma li ma gis nii waa ki lan la calme toi calme down calme down calme down calme down because lu is the problème waa ki 2012 ñëw nga fii Nations Unies nga clamé Ablaye Wade ci coow yoo xam ne mu ngi ko def because mu xoolee dossier yi gis naa ne coow loolu yow bokkoon nga ci ñi ko sumboon pour ñu régler ko léegi yow yaa aye ku aye wal sa moomee yaa moomee danga koy wal li ma gis nii lan la looy ragal wax ma man ak yow ñooy wax wax ma looy ragal yaa yàqal sa bopp fi ma taxaw di wax nii yow yow mun nga fi nekk ëllëg because mun nga nekk secrétaire général ONU yaa ngi yàqal sa bopp wara da nga bëgg a pare nekk chômeur what is the problème adduna ñëpp ñu ngi lay seetaan lu ma gis nii Sénégal dëkku teraanga ñëpp moom lañu xam di cause exemple ci Africa waaw nga donn ko ci ay loxo bul ko yàq bu mu yàqoo sa loxo calme toi calme down is speak li ma gis nii yes na ñàpp bokk coow li jeex le 2 avril incha gën nga sori tegal fi nga war a teg jogal fii nga war a toog ñeneen nga organiser ko ci What is the transparency? Get to the getter. Hmm. waaw waaw waaw kon lan lan ngay ragal maa yow ñooy wax da def tojange hmm da nga def tojange waaw kon lan what is the problem lu ma gis nii tayul sama xel tay na sama xel bi tay na this is the problem ma kii waxtaan nga benn yoon waxtaan nga ñaari yoon ñett yoon dafay tuur xel tuur landam bii nga bëgg a jël tuur ko paanu landam yi tuur ko ci askan Sénégal you is the problème Sénégal du ay politiciens ñoo ko moom askan bi ci lañ bokk quand même booy dialogue yeah le 2 avril maximum this is a finish délai ok maximum le 2 avril élection bu amul le vingt le deux avril doo ko parce que doo nekk ci président yes come back you kids ouais kii comme nekk ci sa parti Nations Unies nous sommes les gendarmes du monde personne ne peut déranger la loi mondiale ok clips down waxtaan naa ak moom mais dafa mel ni dafa am xel ñaar tey ragal ki koy donn Je ne sais pas okay, which is in Africa. waaye it is the problem toog nga jeex na jogal keneen toog waaw donc Sénégal opposition Sénégal Africa Nations Unies taxaw na tem cinq février bu gàttee ba xat incha allah 2 avril élection dina am Sénégal sinon les gendarmes du monde vont monter au Sénégal dëkk bu ndaw bu tuuti galaxtaan bëgg yëggal àdduna bi yëpp ci coow lu daw li gis nii tey na suma xel li ma gis nii li ma gis nii tey na suma xel hmm, ma kii am lu muy nëbb kii am na lu mu def biir sénégalaise de bâtiment wax dëgg yàlla seen xam-xam dafa màcc ci lépp loo xam ne bâtiment la rawatina ci plan boo xam ne da nga bëgg tabax jàkka war a école war a immeuble war a loo munti tabax chantier daal yàlla may na leen ci moo tax réalisation de tout travaux bâtiment ñoom dañ cee xarañ ñoom nag ña nga ca Anmaris ca 33 832 85 85 entreprise sénégalaise de bâtiment mooy entreprise bi nga xam ne ay nit ñu xarañ ay ouvrier yu xarañ te mën ñuy def di ko teg ci yoon mbokk yi fi nga xam ne moom mooy Todo ESGD nekk fii ci HLM Grand Yoff di bërëb boo xam ne lépp loo xam ne day taaral kër rek ñoom mu ci taxaw xoolal ma chambre à coucher yu taaru yi xoolal ma salon yu taar yi xoolal ma tableau yu taaru yi nga xam ne boo ñëwee fii ci Todo ESGD ci HLM Grand Yoff mbokk yi entreprise sénégalaise de bâtiment wax dëgg yàlla seen xam-xam dafa màcc ci lépp loo xam ne bâtiment la rawana ci plan boo xam ne da nga bëgg tabax jàkka wara école wala immeuble wala loo mënti tabax chantier daal yàlla may na leen ci moo tax réalisation de tout travaux bâtiment ñoom dañ cee xarañ ñoom nag ña nga ca Anne Maris ca 33 832 85 85 entreprise sénégalaise de bâtiment mooy entreprise bi nga xam ne ay nit ñu xarañ ay ouvrier yu xarañ te mën mu ñuy def di ko teg ci yoon mbokk yi egsi ngeen fi nga xam ne moom mooy Todo ESGD nekk fii ci HLM Grand Yoff di bërëb boo xam ne lépp loo xam ne day taaral kër rek ñoom mu ci taxaw xoolal ma chambre à coucher yu taaru yi xoolal ma salon yu taar yi xoolal ma tableau yu taaru yi nga xam ne boo ñëwee fii ci Todo ESGD ci HLM Grand Yoff